seen <laughs> mu ngi mu ngi noonu en tout cas c'est intéressant à chaque fois nga gis que a des nouvelles euh, ngi koy ñu ngi koy wéy euh, donc loolu certainement on y on li ñuy wax également c'est important peut-être euh, sur les 93 déjà les 75 ou quelque chose comme ça ñoom ñoo jot am benn kitis bu leen CDC di caisse de dépôt et de consignation daal di jébbal mu doon mbir moo xam ne mbir mu am am solo la donc mu ngi noonu

gi ñëwee am lu ñu jël ah, business am na ñoo pour loolu la candidat ah. aussi boo xoolee y plusieurs casquettes ou plusieurs postures parce que boo xoolee ñenn ñi ñoom ñu ngi dans le secteur privé et je pense que tey seen chiffre d'affaires dina gën yokk ku ci mel ñoom Bougane ku ci mel ñoom Anta Babacar ku ci mel ñoom ki xam ne moo le maire la Kaolack Serigne Bour également je pense que loolu euh, kenn du ko natable donc mu ngi ah. mu ngi noonu waaw euh, jërëjëf Waly mooy xibaar bi nga xam ne moom mooy euh, yenn mandataires yi nga xam moom la ñuy moom dafa bëri kon kon gars xam ne donc seen PV yi a ah, na mën a gaaw gannaaw yëfu kii la moom teel ajuma sax internet yooyu war na mën a war a gaaw hmm. xam naa demee incha allah ñu ñëw bu ñëwee dina am solo euh, en tout cas daal li am solo ba am solo nañ ñoom Souleymane Jules Diop ñoom Cheikh Yérim ñeneen ñeneen hmm. di wax éventuel report des élections mais je pense a vu proximité des élections présidentielles en mais par rapport les enjeux. oui parce que enjeu économie yi xam nañ ko politique bi géopolitique avec la sous-région. Mhm. Sénégal sa position. Mhm. ak yeneen pays yi ko. tey euh, ban attention lañ war def wala lan lañ war la particularité de ces élections ici au Sénégal. waaw particularité bi bëri parce que on y va tout droit vers l' exploitation euh, jëm ci wàllum pétrole ak gaz et je euh, ci par rapport ak defkati ñaawteef et tout donc pour man jàpp naa loolu aussi dafay nekk loo xam ne rek lu am solo moo tax comme ni ko président je pense que sax même ci par rapport ak benn déclaration am na kàddu yu mu yëkkati woon

dama ne sa réew waroo ko jaay waaw xaalis warul tax nga jam jaay sa ngor mhm. te nit ki lenn la am mooy mooy le premier jour ngay réveil matinal bi dem mhm. euh, ci urne yi ran ndékki ba suur sañse ba rafet dem boo vote ki ngay bëgg a voteel mhm. nga jàpp ne moo kii de dafa mel ni du Moussa Taye am kii di ñëw waaw moom nañ moom ban position la nekk am ma loolu euh, waa waaw Babacar Sall Khalifa sànq rek sànq rek maa ngi koy maa ah. waaye am na député moom euh, am na député yi parce que wàllu président la amoon ak certainement quatre quatre quatre candidatures ñoo déposé par président député Euh, waaw benn moo ñeel wàllu élec euh, euh, je pense que mu ngi mu ngi noonu di ñëw. on on est-ce que mu si ci dans les prérogatives pour yëkkati ay kàddu naa moo leen voilà Moussa Moussa je pense que dafa voilà ci tënk rek waaw ci tënk waaw Moussa voilà de temps yi na ab livre jagleel ko Khalifa Sall <laughs> moom Moussa mi waaw temps yi ab livre jagleel ko président Khalifa Sall Euh, certainement on va on verra bien. on verra bien. on verra on on verra bien voilà donc je pense que yegsi na sax voilà yegsi na. voilà euh, mu ngi noonu yegsi na le mandataire de taxawu Sénégal da Khalifa Ababacar Sall waaw. lan Bougane dëgg bu jotee da ngay wax dëgg yenn saa ak yooyu mais il faut quand même dire euh, waa euh, conseil def nañu effort wu am def exercice bu transparent cest à di indi nañu journaliste na ngeen kaay leen fekkee woo nañu candidat yi na ngeen kaay boo mën na sa représentant ñëw au huissier de justice yi woon na tey indi commission bi ubbi ubbi commission bi jël président ordre des huissiers du Sénégal def ko président commission bi donc munoo wax ne la fi xew tey anam yi mu amee jaaduwul donc jaadu na rafetal nañ ko y a eu un effort pour donner des gages de transparence aux candidats sur le tirage au sort tel que prévu par la loi par contre li ñu war a maintenant nag ñun ñëpp ñu positionné aussi et interrogé aussi mooy est-ce que jaadu na ñu éliminer ab candidat simplement parce que dañoo def tirage au sort turam yéex a génn c'est ça en fait la question fondamentale bu sunu démocratie war a régler ñu war a def non c'est-à-dire loolu la tëddee c'est-à-dire tey jii damay joxe exemple ah, non no non je c'est le c'est le système global le système global mooy dañuy ñëw tey ñu tirer candidat mhm. xam nga ñun bu ñu tiré ñun 64e position la ñu ne mhm. mais xëy na ñun ak yeneen parti yi nga xam ne déposé wuñu parrainage citoyen mais parrainage yu élu la ñu déposé. Hmm. xëy na ñun amuñu pression boobu. Hmm. wala pression bi su ñun la gën a néew que ñu déposé hmm. euh, euh, parrainage citoyen mais ñu déposé parrainage citoyen tam da ngay jàpp par exemple benn candidat bu dem wuti parrainage am ñëw seet si Moussa Tine Moussa Tine signé ko parrainage moom mu jël parrainage bi indi ko fii conseil constitutionnel. ñu ne ko waa parrainage bi nga indi woon kat bu Moussa Tine am na beneen candidat bu ko déposé woon kon yow da am ay doublon dañ da ngay ñàkk loolu mooy eh, lan moo indi loolu mooy ba ñu tiré beneen candidat bi la turam njëkk a génn que moom donc en réalité on jour le sort du candidat et même l'avenir du pays peut-être sur la base d'un simple tirage au au au te pire mën na am sax ki nga xam ne moom moo mu mujjee génn xëy na moom la parrainage am baax parce que xëy na kooku moo ñëw seet si citoyen bi citoyen bi nangoo koo signé bu mu ko signaler ba noppi xëy na am na ku nekk si benn association si benn koñ wala ku nekk si ab maire di liggéey si ay secours yoroon ay carte d'identité jox ko benn candidat kooku remplir ko mu ñëw déposer ko ñu ñëw tiire turu kee njëkk a gër ñu éliminer candidat bi donc en réalité la question fondamentale bu ñuy posé wu en termes justement ñun de notre ingénierie électorale mooy est-ce qu'il est normal en définitive qu'un candidat soit éliminé juste parce qu'il n'a pas de chance donc oui voilà il faut soppi ko soppi bi mooy bu njëkk mooy ki nga xam ne moo signal benn candidat dem signé waatal beneen candidat yoon daf na nañu topp kooku mm-hmm. au moins kooku beneen yoon kenn du ko defee ci kenn ko doon doot ko moom du defee ci keneen doot ko defee ñaareel bi it. foofu la ñu njëkk a nga waxoon njëkk a def pour éliminer doublon ñaareel bi diw doy na ma pour doon candidat ak vote du benn moo tax ba ñuy mujjee def dialogue ak dialogue yi fi nekk yëpp ñun opposition bi ñu waxoon pouvoir bi ne li jaadu na nañu permettre benn citoyen muy parrainer plusieurs candidats ndax ko parrainage du vote. mooy kat xool naa ko waaye jàpp naa ne moom doy na ma pour mën a nekk candidat à l' élection présidentielle xëy na ñaar mooy mooy ñaareelu bunt bi. moo tax tey gis nga parti yi lañu am na ñeenti parti yu ñu ne ñoo déposé parrainage parlementaire am na parti boo xamante ne moom moo déposé parrainage des chefs d' exécutifs locaux mooy maire ak président conseil départemental. xëy na ñooñu sax am nañu par exemple damay xool wàllu taxawu Sénégal taxawu Sénégal élection yi passé ñoom amoon nañu objectif bu ñu fixé wu woon atteindre nañ ko trois fois bi yoon. c'est-à-dire ba maximiser sax la taux bi amoon donc mënoon nañu déposer parrainage citoyen waaye bu bu ma ko déposé woon tey ma nekk 64e gis nga immédiatement ñi ma jiitu dañuy ëpp chance si man que ñu dem jàll. donc gis nga moo tax ñi ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo amoon loolu. ñoom ñëpp même bu ñu amee parrainage citoyen y compris le parti du pouvoir certainement personne n'a pris le risque d'aller déposer un parrainage citoyen. Non, c'est équitable parce que ça c'est bien fait. Mais la loi prévoit que c'est un, c'est, ça doit se passer comme ça. Mais la question bi posée où, moi, est-ce que tu peux avoir un excellent candidat, bon candidat, qui a un bon appareil, un parti politique, un aïnitum, un programme, di peser lourdement sur le droit, sur le pied. Dem fay caution. D'ailleurs, la xaalisam 30 millions, dem fay caution. Mu ñëw ñu mu génn si fin ba immédiatement ñu ñëw def def parrainage ñu ne ko yow kat jàll mën na loo jàll. c'est beneen laaj bi mooy wàllum xaalis parce que gis nañu dégg nañu ni 93 euh, euh, candi mandataire moo fi nekk wala 93 dossier moo fi nekk mais 77 personnes wala 77 euh, mandataire kese ñoo déposé. cause euh, peut-être que ñoom certainement peut-être que am na ñoo ils ont peut-être des problèmes et ça je l'ai vu mais il faudra certainement qu'à un mais ñoom ñëpp 95 yëpp ku nekk ñëw na tey jël jël dossier xëy na am na ñoo xamante ne am nañu problème dépôt wala yéex attestation mais ça on verra par la suite le conseil nous dira moo tax au-delà de tout cela il va y avoir après une délibération dans Et eh d'ailleurs, c'est à ce niveau-là qu'il faut que nous, nous travaille à changer la philosophie que nous avons pour notre, notre élection. L'idée d'une élection, ce n'est pas d'éliminer des gens. Mm -hmm. C'est-à-dire que la conscience moyenne, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Donc, nous disons souvent, nous, nous avons dit que l'élection est galgalante. Nous avons dit que l'élection est galgalante. nit day jox say question yi xam nga ne da donc la philosophie bu ñu war a jiital si élection yi c' est faire en sorte que tous les candidats sérieux puissent passer parce que loolu mooy rafetal démocratie le débat politique bu a am euh, offre bi ñu euh, citoyen les offres concurrentes loolu moom mooy dundal effectivement une une démocratie. en le contrôle du parrainage euh, parlementaire nu mu war a demee oui euh, c' est la même chose ah que que bële bu am doublon c' à dire bu député signé pour deux bu benn maire pour deux euh, et autres c' en fait ça le problème bon je sais que au niveau de Taxawu les gens ont pensé que Taxawu n'avait pas ça oui mais on a ça Taxawu a 14 députés même lorsque Barthélemy a alerté les gens ont dit on va pas avoir mais Taxawu a effectivement 14 députés donc euh, Taxawu pouvait faire signer à députés ou 14 nga xëy si foog nga lekk ba suur quoi. bari naa ci également mu mel ni ñi nga xam ne tey ci wàllu ci rajo xool maa ngi njëkk a jënd moom ay kàddoom day mel ni. waaw ci yàlla ba si kanam rek. dafa passé li nga xam ne moom mooy. mbiru parrainage yi Bamba dégg nga dégg nga lu mu waxee maanaam kon dafa mel ni kon ñi ñu xam ne moom mais xam nga Matar ñu wax ñàkk ko wax mais xam nga euh, tirage bi la pléthore des candidatures euh, dina am ci ñoo xam ne kat dina am impact ci ñoom loolu moom je pense qu'il faudra quand même ñu dal di ko mooy tey euh, ñi nga xam ne c'est des candidats potentiels certainement ñenn wala ñaar ñett ñeent ba juróom ci ñoom peut-être dootu ñu am li xam ne moo yenn ci ay torto mais la plupart ci ñoom aussi je pense que ku ci amul député pour mën a jàll lu soxal wàllum euh, li nga xam ne moo di parrainage euh, citoyen bi donc je pense que nag par rapport ak yenn ci inquiétude yi nga xam ne mu ngi koy euh, <laughs> révélé Kébé yenn ci inquiétudes yi nga xam éventuellement mu koy junju loolu je pense que li ñu war mun a bàyyi xel la mais nag jàpp moom lu baax la parce que bu njëkk fi nga daan ñëw euh, kii di buuxante kii maa njëkk kii maa fi yegg si heure bi mais je pense que bu ñu ko defee ni tirage ni ku nekk xam ban zone ngay ñëw de façon civilisée euh, quand même ça va ñu mën jàll de façon légitime et loolu il faudra reconnaître quand même que c'est quelque chose de bien tout cas donc euh, mu ngi mu ngi noonu. non kon kon ah. kon kon kon ki nga xam ne moom mooy Maître Clédor. Mhm. Euh, jàpp nañu ne PV bu mu war a récupérer ginnaaw bañ defee tirage sort Ousmane Sonko nekk la quatrième. waaw mais il sera il ah, n'est pas obligé il n'est pas obligé également mu jaar fii donc. non foofu jaar fii il n'est pas politicien comme comme comme ay Daffé qui est député à l'Assemblée nationale. dina fi jaar <laughs> wax wax wax li nga xam ne moom la. waaw on verra on verra on verra mais en tout cas déclaration bëri na. Euh, également ñi xaarandi également yeneen mandataire comme le mandataire de de de Pape Djibril Fall. Pape Djibril waaw ñu dernier sens waaw moom est-ce que c'est un un challenge la gars yi di wax. Pape Djibril Pape pourquoi pas parce que euh, gis nañ ko mu def ses preuves ci par rapport ak élection euh, législative yi il a peut-être eu li nga xam ne moo di euh, gain de cause ci par rapport ak loolu maintenant je pense que nag par la suite am na déclin politique boo xam ne am na ci moom après les gens les caricaturés donc ñu ngi je pense qu'on a vu ce qui se passe. C'est bon, hein C'est bon Vas-y. Amadou Lamine Keita. Docteur maestro. Maestro. Mandataire. Mandataire. d'accord ban position ngeen nekk. sur la liste. waaw ci tirage bi. tirage bi 3 waaw lan mooy sa jàngat par rapport ak li nga xam ne mooy tirage bon ça semble être normal quoi. ni ko waxee ni ko defee bon je crois que c'est il y a du sérieux là-dessus. tirage euh, je crois qu'ils ont respecté quand même les candidats. L'accueil a été bien, bien installé et voilà, tout a été clair au début. Ensuite, ils ont fait le tirage. On nous sommes tombés sur le troisième. Je vois que la liste est longue. Hein. De toute